ne faslun li ab dog la fit taharati ci lab at taharatu lab hadas mom lañu fi am toj qismani ñaari xaj la taharatu hadasin labu hadas wa taharatu khabasin ak labu khabas xabas moom la wax jëmmi sobe dafa wax ne laab ñaari xaaj la laab goo xam ne jëmmi sobe dafa nekk ci moom moo xam daa nekk ci mbubbam mbaa ci aw yaramam mbaa fa mu bëgg a jullee sobe nekk ja dindi sobe sax te dindee ko ndox mañ ko war a dindee rek loola mooy laabu xabas xadas moom ñi firi am toj nag dafi ak ñàkk lab goo xam ne doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko waaye li feek defoo la ko yëkkati bañ wax ni am nga laab yee ñu la aaye ci ñàkk laab doo sañ iki bi ne julli ko amoon toj du ko sañ wala ñu ne laal af kaamil wala war kaaba ko amoon toj du ko sañ xamal ne kon ku amoon toj li di difut la yëkkati toj ma rek du saña def loola ci misal bu demoon ci wanawa dindee sobe sa ndox mañ ko war a dindee ba àggal kon yooyu jamono amatu jëmmi sobe suñuy làmb di ko daj mbaa di ko xool di ko gis waaye nag teew rek mu amee li wax am toj mooy foofee mu nekk sañuta songu julli wala wër kaaba wala laal kaamil wala leneen loo xam ne daal dañ cey sàkku laab ci am toj su ko defee lay tax na mu laab ca toj moomee mooy rek bu dee koo xam ne sangu farata moo war mu sangu farata bu ko xam ne jàpp moo war mu jàpp bu dee xam ne tiim moo ko war mu dal tiim nga xam ne kon kenn ku ne balaa julli war naa jëmmi sobe nekkul ci yaramam nekkul ci ay yéreem nekkul ci bërëb ba muy jullee te it na seetluwaale bu waree musuwaar wala leneen ci poosam itam niki montal ba leneen lépp rek dañ koy boolewaale ci ay yéreem nga xam ne daa waru caa am sobe loolu mooy tahaaratul xabas laabu xabas waaye nag bu mu fàtte ne bu fekkee ne sobe sa waaye ndox moom ko dindee dafa nekk ndox mu soppiku ba yoon ne mi ndox mënta jaamu yàlla kon kat jëmmi sobe sa dañ na waaye atte ba dafay nekk ba tey maanaam day mel ne rek dindeegul sobe sax mel ne koo xam ne sobe da koo taq mu dem dindee ko ndox mu am saabu jëmmi sobe sax dana deñ waaye yoon day jàpp ne ba léegi dindeegu ko nga xam ne bu dee ci yaramam la ko taxa mën a julli foofee mu nekk bu dee ci ay yéreem mbaa ba mu jullee mbaa lu ko mu it noonu bala atte ba dañ rek mu jël ndox mel ne mi ñuy jàppe awale ko ci kaw du aajowoo sax raxas mbaa fitte aka naj waaye nag faaw rek na awale ci kaw ndox mel ne mi ñuy jàppe loolu tax saa ay yéreem amee sobe soo xam ne mënees ko julliwaale te koy fóotloo keneen da koy wax ne ko boo ko fóoteeg saabu ba noppi na nga ci awale ndoxu mel ne mi ñuy jàppe laabu xadas nag moom man ngaa takk rek ne saa yu ko sangu farata waree mu sangu farata mbaa jàpp war ko mu japp mbaa tim war ko mu tim rek dal nay amé labu hadas labu khabas nak manam baye julli walé sobé ci coobareem mo gëna wayef gëna am a amub ndax manes na tak né sepp sobe so xamné bis bu ne mu génne ci nit ki moo xam day taq ci yaramam moo xam day taq ci ay yéreem waaye moom bis bu ne rek mu néew néew mu am benn yoon moo xam ci guddi lay amee moo xam ci bëccëg la sobe su mel noonu jéggal nañ ko ko mën na koy julliwaale te it bu ko fàtte woon julliwaale soo xam ne mën naa tàggoog moom waaye fàtte gaa tax tàggoowut ak moom ba julliwaale ko it ba sëlmal julli googu baax na dañuy sopp rek mu baamu ko ci waxtu wa nga waxtu wa des na diir bu mën a tàggoog sobe sa ba noppi baamuwaat ko ñu sopp rek mu baamuwaat ko waaye julli bu njëkk baaxoon na laabu xades nag moom mënta ñàkk ndegam yaa koy mën a am nga xam ne bu defee woon ne amee na mu jàpp julli bu sëlmal ne jàpputoon julli ga du baax te waroon na sangu farata jàppoon ne sangu woon na bu jullee ba noppi mu seetlu sangu wutoon ba tey julli ga du baax fekkee daa war a tiim mu jàpp ne tiim na julli bu sëlmal door fàttaliku ne ah moom kat tiimutoon ba tey julli ga du baax. wala yasixu du wér aljamihu mboole iki buñu julli ku amem toj du sañ wala ñu ne laal wala wër kaaba ku amem toj du ko sañ xamal ne kon ku amem toj li difut la yëkkati ma rek du saña def loola ci misal bu demoon ca wana wa dindee sobe sa ndox mañ ko wara dindee ba àggal kon yooyu jamono amatut jëmmi sobe suñuy làmb di ko daj mbaa di ko xool di ko gis waaye nag teew rek mu amee li wax am toj mooy foofee mu nekk sañuta songu julli wala wër wala laal kaamil wala leneen loo xam ne daal dañ cey sàkku laab ci am toj su ko defee lay tax na mu laab ca toj moomee mooy rek bu dee koo xam ne sangu farata moo ko war mu sangu farata bu dee koo xam ne jàpp moo ko war mu jàpp bu dee xam ne tiim moo ko war mu daal di nga xam ne kon kenn ku balaa julli war naa wóorlu ne jëmmi sobe nekkul ci yaramam nekkul ci ay yéreem nekkul ci bërëb ba muy jullee tayit na seetluwaale bu waree musuwaar wala leneen ci poosam itam niki montal ba leneen lépp rek dañ koy boolewaale ci ay yéreem nga xam ne daa waru caa am sobe loolu mooy tahaaratul xabas laabu xabas waaye nag bu mu fàtte ne bu fekkee ni dindina na sobe sa waaye ndox moom ko dindee dafa nekk ndox mu soppiku ba yoon ne mi ndox mënta jaamu yàlla kon kat jëmmi sobe sa dañ na waaye atte ba dafay nekk ba tey maanaam day mel ne rek dindeegul sobe sax mel ne koo xam ne sobe da koo taq mu dem dindee ko ndox mu am saabu jëmmi sobe sa dana deñ waaye yoon day jàpp ne ba léegi dindeegu ko nga xam ne bu dee ci yaramam la woon ko taxa mën a julli foofee mu nekk bu dee ci ay mbaa sajaada ba mu jullee mbaa lu ko mu it noonu bala atte ba dañ rek mu jël ndox mel ne mi ñuy jàppe awale ko ci kaw du sax raxas mbaa fitte ak a naj waaye faaw rek na awale ci kaw ndox mel ne mi ñuy jàppee loolu tax saayu ay yéreem ame sobe soo xam ne mënees ko julliwaale dañ koy fóotloo keneen da koy wax ne ko boo ko fóotee saabu ba noppi na nga ci awale ndoxu mel ne mi ñuy jàppee laabu xadas nag moom man ngaa takk rek ne saa sangu farata waree mu sangu farata mbaa jàpp war ko mu jàpp mbaa tiim war mu tiim rek dal nay amee laabub xadas laabub xabas nag maanaam bañ a julliwaale ci coobareem moo gën a woyof gën a amub jàppale ndax manees na takk ne sépp sobe soo xam ne bis bu ne mu génne ci nit ki moo xam day taq ci yaramam moo xam day taq ci ay yéreem waaye moom bis bu ne rek mu néew néew mu am benn yoon moo xam ci guddi lay amee moo xam ci bëccëg la sobe su mel noonu jéggal nañ ko ko mën na ko julliwaale te bu ko fàtte woon julliwaale sobee soo xam ne mën naa tàggoog moom waaye fàtte gaa tax tàggoowut ak moom ba julliwaale ko it ba sëlmal julli googu baax na dañuy sopp rek mu baamu ko ci waxtu wa nga waxtu wa des na diir bu mën a tàggoog sobe sa ba nopp baamuwaat ko ñu sopp rek mu baamuwaat ko waaye julli bu njëkk ga baaxoon na laabu xadas nag moom mënta ñàkk ndegam yaa ngi koy mën a am nga xam ne bu defe woon ne na jàpp julli bu sëlmal fàtte ne jàpputoon julli du baax te waroon na sangu farata jàppoon ne sangu woon na gannaaw bu ba noppi mu seetlu ne sangu wutoon ba tey julli du baax fekkee daa war a tiim mu jàpp ne tiim na julli bu sëlmal door fàttaliku ne ah moom kat tiimutoon ba tey julli ga du baax illaa bil maa indara ndox ma الطاهر ما أجي لاب المطهر ما أجي لابل وهو من الذي ما يدخ من خمني لم يتغير صدقه لونه ملوة أو طعمه ولا جف كامغا أو رائحته ولا ختمغا بما جلنغ خمني yufaariquhu dana teqaliko moom mu xaaliban ci la not maanaam ci bari ka zeyti ni diw wasami ak diw ñor wa ak ñaay ñaay jeexiti diw ku lihi wal wadahi ak taqiti jur li taq jur bu soppee ndox ma loola la ko soppi joti wut moom dara alwadax mooy taq yi ci jur la taq ci jur ga wëlbatiku dem ca ndox ma bañ mën ko caa xàmmee was saabooni ak saabu wal wasaxi ak ub tër wa ak lu mel ne moom baatu alwadax moom la wax ma taallaqa bi aswaafi alganami min al bawli wal baar la taq ci kawaru gàtt yi ci xeetu saw walla neefara wala ñu wooye al wadax man bu la neexee al wadax nga firee ko rek tirub jur tirub gàtt tir bay bàyyi ko ci gàtt yi rek la wax ne bu soppee ndox ma dana ko yàq wala ba'sa ayut bi ci suuf wal xamay ak ban wa sabxati ak ceeñ ceeñ mooy suufus xorom wal xarsi ak gàncaxuk tux lubbu xama mooy ban bu ñuul kukk wa nax yi ak lu nuroog moom maanaam la soppi ndox mi bu fekkee ne yàllaa ko booleeg ndox la ci ëpp duñ tàggoo mel ne suuf yàllaa ko booleeg ndox wala fa ñuy génnee ndox ma day ban bu ñuul kukk tax ndox ma ñuul mbaa day ban bu xonq cooy tax ndox ma xonq cooy wala foofa di suufu xorom tax ndox ma saf xorom wala foofa am gàncaxu am benn ndox maa ko romb mbaa dafa taafa fa moom ba tax gàncax ga saf ca mbaa xet ga xeeñ yooy yooyu yëpp du wàññi dara ca ndox ma mënees na koo jàppe mbaa sangoo farata ak yóbbu ci wana waag moo ko bëggee rek dafa mel ne nag lu mel ne cepp boo ko fawee def ko ci sam ndox ndax bëgg mu neex xet kon daa mel ne bu ko soppee rek dal di ko yàq ci wàllu jaamu yàlla man ngaa takk ni daal ndox mi moom lépp lu ko soppi te bokk ci matière yi nga xam ne ko def ci suuf si ba mu koy ba koy sos wala ndox mi lu mu romb ci xeeti gàncax yi mbaa garab yi ko soppiku du yàq ndox ma ba tey mënees na ko jaamoo yàlla iqra bismi rabbika alladi xalaq lis au nom de ton Seigneur qui a créé read in the name of thy Lord who created خلق الإنسان من علق qui a créé l'homme d'une adhérence created man from a clot Lis, ton Seigneur est le très noble. Read, and thy Lord is the most bounteous. Qui a enseigné par la plume le calam. Who teacheth by the pen. علم الإنسان ما لم يعلم a enseigner à l'homme ce qu'il ne savait pas.